tey moom gis ngeen dañ fay ñëw waaye am na ñeneen ñu àndal ñi ñu àndal nag ñooy waa Au Pain Sourire ñoom waa France lañu di liggéey ak ñun nag ci fànn yu bëri rawatina nag teen yàlla def na ñoom defe naa ne seen téeméeréelu puits ëppal nañ ko. macha allah euh, lépp nag ñu def ko ci kóolute maanaam fële lañ doon toll rek téeméeri pu téeméeri teen yëpp dañu yónnee xaalis bi rek ñu ne daal di def mais yàlla nag def na ba alhamdulilah gàcce amu ci ndax euh, teen yëpp ko yu ci bëri dafay mel ni bii dañuy ñëw fekk liggéey bi baax mu am ndox ci profito tamit gërëm ki doon gas ñaan yàlla mu nangul ko te barkeelal ko lim fi am ñu ngeen defal teen yi ndox mi la itam bu baax bi ñu am ci yéen yal na leen yàlla dal yal na ñaan bi nangu rek coono bi ñu dajoon fii ndax ñun boo buggee naan da mu demal ca pol ya jawle demal ndaagaan demal fale ngeen toog benn defal ñu teen bi fii xam ngeen ne kontaan nañu lu nit am ci lu ñaan bu baax ak ñaanal la rek yàlla def ndox mi bu bari woon sax ngeen gis ñu béy mbéyum noor lii pare na waaye bu ngeen ñu defaroon ñu fexe ba am kattan bu defar eh, xur suñu xur bii ñu di bi béy noor ak nawet baax na lool te yàlla tax. am nañ ci mbégte bu baax a baax a baax parce que ndox lu am njëriñ la ndox moom kuy dundu ndox dafa am solo ci dunduwaayu nit te aussi. Eh, nek na suuf su boo xam ne vraiment ah, la ko defal sant ko rek nga mën am na njëriñ aussi ci jigéen yi kon nag léegi buñ ko sampee aussi day wàññi coono jigéen yi kon daal ci li gàtt ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax a baax ah, leen jàppale leen ci seen projet bi mu yàgg fi lool dëkk bi daal kontaan nañ ci lool ci yéen bu baax a baax a baax ah, période bi la rek mais bu nekkutoon loolu aussi du manqué ndax forage bi aussi demone nañ bi am luñ ci sentir bu buggoon ndox mu neex bu baax parce que fleur bi def ci nek demone na be yak ay boñu xale yi kon nak kuñu defal li mënuñ la defal dara lu sante la gërëm la li la ñaanal yalla ne yalla defal promotion. Je salue tout le monde, euh, je salue les vieux, notre chef de village en particulier, fay Vraiment, nous sommes très contents. Euh, plus particulièrement les femmes du village, parce que nous avions un problème d'eau, euh, d'eau potable aussi. Nous avons un forage, mais le forage, euh, on peut faire le linge préparé, mais pour boire, ce n'était pas très bon à boire, parce qu'il y a du fluor, etc. Vraiment, si, si vous nous amenez ce joyau-là, on est très content et on prie pour vous, on prie Allah, vous, vous donne beaucoup de chance et beaucoup de progrès. Merci. C'est un honneur d'être ici, au Sénégal. C'est la première fois que je viens, de si loin, et on voit des, beaux visages, des sourires. Les gens sont contents, donc ils nous font euh, confiance. Machallah, on est très très très heureux d'être là. Et surtout quand on voit la, fin de la réalisation, c'est du pur bonheur euh, pour les villageois, pour nous on a goûté l'eau, elle est bonne, <laughs> elle est abondante, et il y en a pas mal, voilà. Donc euh, par rapport à ce puits, il, a une grande histoire, puisque ça fait un an qu'on l'attend. Ça a été, on avait trouvé de l'eau une première fois, on m'avait dit, donc il a fallu recreuser, parce que l'eau avait disparu, il y avait une, roche très très très dure. Donc ils ont recassé, ils ont recreusé, et aujourd'hui on est vraiment très content qu'il y, ait de l'eau. La famille Couage doit être... Euh, très heureuse aussi. Ils ont, euh, c'est sa fille euh, qui a, effectué ce puits pour son papa, Allah Donc euh, le papa, mashallah, il, il peut être fier de sa fille. Voilà. Assalamu alaikum.